bismillahi irrahmaani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu <clears throat> asbaxnaa wa asbaxa almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hada alyowm wa xayra ma baad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 ñaan ci réew mi jàmm ak réew yi ko wër jërëjëfal alxaaji sëñ si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ci poche def dara ni ko waxoon démb bi ñëkkati jataay bi te doon waxtaan lu jëm ci jàmm te doon indi yi sharia tëral ne bu ñu ko defee am jàmm penc mi am jàmm kër yi am jàmm réew mi am jàmm continant bi am jàmm bu ko àdduna si yëpp bokkee def àdduna si yëpp am jàmm ñu lim ca juróom yoo xam ne soo dee seetlu bu ci nekk àtte ba ca lislaam tëral àtte bu sévère la li tax mu sévéral ko nag nim mel a tax waaw juróom yi lislaam indi woon te mooy sàmmal nit ki lim gëm sàmmal ko bakkanam sàmmal ko am amam sàmmal ko ab deram sàmmal ko xelam mu juróom yooyul bu ci nekk lislaam nim ci àttee àttewoo ko ci yeneen àtte yu sévère la ci def boo jëlee nag lu mel ni jël bakkan lislaam àtte na ci lim ci àtte penc mi nag léeg-léeg boo ne peine peine de mort dama xamul nag baat bi ci tubaab moo diis ba penc mi àtt nuñ ko walla lan moo xew alaakulli xaal lislaam waxut rek ne ku rey rey leen ko ku rey rek rey leen ko déedéet ba ñu jàpp ne ku doon dawal oto accidenté am ko ca faatu sax yow ñu rey la déedéet lislaam waxut loolu lislaam diine la joo xam ne sunu borom tabaaraka taala moo ko jox sallallahu alayhi mu indi ko lu ci nitoo di ko amut diir bam nekk màkk te gàddaayu gut lu ci nitoo di ko amut diir bi mu jógee màkk ñëw Madina lu ca nitoo di ko amul lépp nite lépp lu islaam indi rek ijaas lay doon ci pénc mi ijaas ilmi ijaas tarbawi ijaas siyaasi ijaas ijaas mooy lépp lu indi rek jar na foto tàccoo ñaari loxo waaw bu nu nee peine de mort nag penc mi xam naa niñ koy firee mooy rek lislaam nee na ku nañ ko rey waxewu ko noonu de waxewu ko noonu lislaam daa gis ne li ñu tuddee pen code pénal walla nàngam peine li ko lislaam gise dafa gis ne nit ki jël ruuxu nit nit ki jël ruuxu nit li muy def gaa sunu borom tere na ko wax ne ku def ku jël ruuxu ku gëm te tey ko ak lu ngeen ko mën di àttee yéen waaye man maa ngi koy xaari jëhannam loolu la sunu borom wax wa man yaqtul mu'mina mutaamida fa jazaauhu jahannam ak lu mën a xew nag moo xam fayul ngeen ki ñu rey moo xam fayulu leen ko ndax lislaam ni mu tudde moom ay jinaayaat nga xam ne mooy peine de mort ni mu ko gisee mooy ki rey te tey ko waaye ki rey te tey ko sax du rey te tey ko rek ñu ne ko ay ca dañ lay rey kon ndax nit mën naa rey bokki kim rey baale waaw móor xuj rey na bàcc te moo ko tey ah bokki bàcc daa di baale móor xuj duñ ko rey waaw duñ ko rey moo tax bi lislaam ñëwee dafa tëral ne ñetti xeeti rey ñoo am professeur mu ne ñetti xeeti rey ñoo am rey goo xam ne ki ko def moo ko tey rey goo xam ne ki ko def lim def dafa niroog ko tey lim def ak rey goo xam ne ki rey teyu ko reyu njuumte la tribunalul islaam xam na ñett yépp xam ngeen ne ci bitim réew am na fa jigéen joo xam ne ab senegales la keroog bi ñu ko attee ca tirbinal ba atte ko ne daara yi kon dañ koy rey xool nga li lislaam def foofa ñu naa ah, doomam yi kat waaw doomam yi ñoom lañuy bàyyi ba nu am nangam ci at ba ñu àgg ci seen rushd su ko defee ñu ne leen seen yaay de diw mii moo ko reyoon lu ci seen xalaat bu ko gone yoo ne baal nañ ko dañ koy bay mu ñibbim réewam bu gone yoo ne baaluñu ko nag ca lañuy teg ci moom àtteb lislaam moo tax ay at a ngi nii déggu ko ña nga téye àtte ba di di xaar gone ya màgg ba mën a xàmmee baal nañ ko ak baaluñu ko mbokk loolu jar na taxaw lool taxaw seetlu bu am solo ndax àtte la bu doy waar te bu maandu la moonte ndaw si de jëkkëram a nga fa waaw waaye ña ngi ciy déglu ay ay doomam waaw loolu loolu lu yéeme la kon ñetti xeeti rey yooyu ñoo am waaw ñetti xeeti rey yooyu ñoo am benn bi mooy kii rey moo tey li def moo ko tey du sababu dara yooyu nag day bëri ci penc mi léeg-léeg nag waaw day bëri ci penc mi nit koo xam ne kii moo tey lim def dara jotu ko waaw moo ko tey loolu borom bi da ko àtte woon ca alxuraan nee na loolu la àtte woon ca tawraat nee na loolu la àtte ci injil waaw wa katabna alayhim fiiha anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udna bil udna wa sinn bi sinn wal juruha qisaas waaw loolu la su suñu boroom wax waaw mu ne ki jël bakkan jël leen bakkanam anam ki rey rey leen ko moo ko tey teg na ci sax yu ci war te tege walla jiital na yu war te jiitu ndax ëpp doole jigéen bëgg koo siif ëpp doole jigéen bëgg koo siif mu lànk gantu li nga ko bëgg a def nga forcé ko def ko ba noppi jël bakkanam sunu boroom nee na lu ngeen def lu dul jël bakkanu kii tooñ ngeen ka dem waaw fa ulaa'ikumul faasiquuna kaafiruuna zaalimuuna nee it ki tey fuq bëtub nit fuq leen bëtam ñu dem fa ànd dem faju ji ki fuq bëtub nit mu ne am ne fuq leen bëtam ki fuq bëtub nit te tey ko waaye waaye fuq leen bëtam waaw ko defee ku ne faju ji ki dagg bakkanu nit it dagg leen bakkanam ki dagg noppu jàmbur dagg leen noppam ki damm ba ñu jàmbur damm leen bëñam est-ce que suñu borom ñu ne ko kuñ xaañ nag mu ne kuñ xaañ natt leen ko ngeen seet kiñ xaañ ndàmpaay liñ koy dàmp nu mu toll nangami centimètre nangam la ci xaalis wala nangam la ci gëléem nangami centimètre nangam la ci xaalis nangam la ci gëléem waaw wal juróo xisaas ngi ci maayida waaw ah, mu ngi ca maayda ah, kon koo xam ne itam yaay mbokkam ki ñu rey mu di gone yii may wax ne dañoo rey seen yaay gone ya ñooy màgg ñëw tribunal ñu teg àtte bi wax ko nam demee woon bu gone yi ne baal nañ kii mu dem ñibbi waaw mu nekkoon ku ñu rey sa mbokk ñaar ngay def benn ñu fayal fayul la mbaa ñu jox la diya ndàmpaay waaw ndàmpaay mu ne kooku benn kon ñu fayul la walla ñu jël ndàmpaay walla ñu baale yépp lislaam nangu na ko fayu uh, jël di jël ndàmpaay ak baale kooku bu ñuy wax pen de mort nañ ko ci di waxaale waaye bu ñu wax rek ne lislaam nee na ku rey nañ ko rey waxut loolu waxut loolu de ki ñu rey mbokkam ki ñu rey mbokkam man usiiba bitamin aw xatl bi ay juruxin fa huwa bil xiyaar bayna ihda thalaas loolu la ko njàngale ma jàngale noonu la ko sallallahu alayhi wa jàngalekat ba jàngale benn an yaxtas aw yaxusul aql aw yaafu ñett yi ci def rek lislaam wéyal ko waaw gone yooyu buñ màggoon tey daa di laaj karayoon seen yaay walla ka deewug seen yaay jaar ci loxoom gone na nañ leen jox ndàmpaay su boobaa ka dee ga jaaroon ci loxoom day joxe ndàmpaay bu gone ne baal nañ ko mu ñibbi bu gone dañuy fayu ñu àtte ci moom àtte fayu waaw alayhi salaatu salaam nee fa in araada raabia fa xusuu ala yadayhi kii dañ ko rayal mbokkam mu ne duñ ko duñ fayul mbokkam maanaam duñ ko fayul du jël ndàmpaay du jël euh, du baale mu nekk ab quatrième la bëgg téye leen ci loxoom xaw mën a quatrième ba su muy doon waaye mbokk yi nit ñi sunu boroom mi leen bind daa xam ne buñ xamee ne àtte bii mi ngi ci pénc mi di xaar xaar gi ñuy xaar àtte bi day tax nit ñi léeg-léeg du ñemee lu ñu def imaam Ablaye Ndaw ma la ca ndànd dal na ko yokk dafa am bés <laughs> ñu reer cere ja des fam bés ñu reer cere ja des mbuub mum saab-saab yooyu nawedaay ñu denc ko ci waañ wi ginnaaw moom bu xëyee <laughs> da ciy ndékki biñ ko dencee ci waañ wi nag soxna si di fat bag dab yépp ba mu des kuur gi kuur gi ñu dëbbee roof moo des am sàcc bu dugg si ci kër gi seet seet amul lum sàcc mu ubbi ndab li gis ci cere jeeg ñax mi mu ne kon nafar jël lii bi mu jëlee cere jeeg ñax mi di génn ñëw ci ëtt bi fi mu jaaroon romboon na fa ak kuur moom sàcc bi romboon na ak kuur gu fa tege woon ndeke muus mi mooy fa kuur gi ba bérëng ko sàcc bi ñëm ñëwee gisul kuur gi dafa jàpp ne daa am ku jël kuur gi di ko tëru sàcc bi ci boppam kenn tëruwu ko rek imaam Abdoulaye Ndaw mu ngi néegam soxna yaa ngi ca néeg àllale seen ndaw waaye sàcc bi gisul kuur gi mu daal ne sawaay delloo sil kuur gi boppam nag lay waxal <laughs> delloo sil kuur gi sawaay su fekkee yaa muy dégg yow laa wax tegal kuur gi fi mu nekkoon man teg naa cere ji fi ma ko jële woon kon nag delloo sil kuur gi waaye sàcc bi ñi mu wut a génn ndax jàpp na ne ki ki yor kuur gi moom lay tëru fa la taxaw di wax ak di wax ak boppam di wax ak boppam bañ salaatu imaam Abdoulaye Ndaw jóg waaye mbokk yi gis nga xissa boobu léeb woowu léeb woowu mooy mooy ay loi cim réew léeb woowu mooy ay loi cim réew gis nga sàcc bi li ko tee yóbbu cere imaam Abdoulaye Ndaw ji mooy kuur gi mu gisoon te gisatu ko te xamul ba xam ci loxo ponkal la nekk walla déet mu jàpp ne buy traverse rek mu koy xaañ ragal gëm ragal kuur gi nga xam ne gisatu ko moo ko fa téye bañ salaatu gis nga ay loi cim réew nun la mel ay loi cim réew nun la mel constitution cim réew nun la mel gis nga boo defoon micro trottoir di laaj réew mi sunu constitution bii nga yendoo laaj article un ci ëllëg sa nga teg ci article deux dama ne day am yu baree baree bare yoo xam ne mi ngi fi ñu koy tere te nun xamuñu ko am yoo xam ni mi ngi fi nu koy maye te xamuñu ko naa ko bëkki dem ci li ñuy wax ci réew mi ci gaz gaz bi toll na nii petrol bi toll na nii mais ñi ne ci réew mi nogay xamu ci dara dara dara muruq ja xamu ci dara paate xamu ci dara lu teewoon lu teewoon ñu wut ay émission yoo xam ne télé yeeg rajo yépp noo ko yore wax réew mi yépp li nu am ci pétrole ñaata teen la fu teen ya nekk xootaay ba ñaata la yaatuwaay ba ñaata la teen boobu bët bu set ñaata barigo lañ ci mën a roote barigo yooyu lu muy jar buñ ko jaayee fu ñu koy dugal gis nga loolu day dekkal al amal maanaam day dekkal yaakaar ba nga xam ne mën naa tax Ibrahima Ndiaye kalandoo mën na nekk itali ñibbi ñibbisi mën naa tax morxu ji mi doon mi doon waaj fomm waaye duñ ci xam daara daara la liñ ci xam ak as néew tu euh, ci làkk tubaab lañ koy def génn ko ci ay ay ay ay écran bon nangam nangam daal di wasalaam te nun ñëpp buñ bokkee yëf yi ndax dañuy wax ne eh, mbellum réew mi réew mee ko moom mbel ressource naturelle réew mee ko moom mënuma koo làkk tubaab lépp ba mu jeex mais xam ngeen li may bëgg a wax waaw <laughs> waaye loolu peine de mort nun la mel ate nun la mel ay loi nun lañu mel am réew bu ca nit nekkee bu nu bu nu nekkee ci sunum réew nan xam yi fii daw moo tax kon kenn wërte jam baaraam sharia naan dafa seweer ku rey nañ ko rey sharia waxewu ko nun de déedéet ki rey bu mbokk yi baalee mu mucc ki rey bu mbokk yi nangoo jël euh, ndàmpaay mu mucc waaw am na geneen rey goo xam ne mu ngi tudd shibul hamd amd mooy rey goo xam ne bu dul tayit niroo na ak tey bu dul tayit niroo ak tey ah waaw mi ngi mel ni ku jël ak bale dóor ko jëkkëram jëkkër ja faatu maanaam bàcc ko bale gi mu faatu walla jëkkër ju faboon bale dóor ko jabar ja mu faatu damay misaal ndax sharia am na lu mu wax ci diggante boobu ci wàllu rey ndax dañ koy dañ koy fayul wala déet waaye daal dama bëgg misaal rek ne nit ku jëloon ak bale bàcc ko nit mu faatu waaw wala mu jël ab yé yére lem ko dóor ko ko mu faatu yooyu dañuy wax ne loolu daawuñ ci rey nit ndax mosoon naa xew ca dëkk sàngam dëkk sàngam soxna sa togg reer euh, ñeex ma doyut <laughs> ñeex ma doyut mu ne jabar ji indi ñeex mu ne ko na jaay ñeex ma jeex na bi mu ne ko ñeex ma jeex na mu xàcc loxoom pes ko ndaw sa doxe ca pes ma génn àdduna am pes daawul rey am pes daawul rey kon yooyu nga xam ne bu daawul rey nga bàcc ko nit mu far faatu lislaam dina laa yaa ko tey da koy jàppe rey gu niroog tey rey googu it sunu boroom atte ko waaw atte ko wa man xatala muminan xataan mu ngoog ku rey mumin ci njuumte ku rey ku gëm te tëyu ko nu muy def fa tahriru raqabati mumina day gorelub jaam ginnaaw mumin la rey day gorel jaam boo xam ne mumin la wa diyatun musallama ila ahli ba noppi joxe ndàmpaay illa an yasaddaxu lu dul mbokki ki ñu rey ne ñoom def nañ ko sarax baal nañ waa waaw beneen bi nag mooy reyu njuumte rey goo xam ne gii kii tëyu ko waaw tëyu ko reyu njuumte gële dafa niroog njuumte gii nag tëyu ko moom tam lislaam atte na ko daanaka mook reyu ginuroog tey ñoo yam atte yii nag la lislaam indi woon mu indi woon ci juróom yoo xam ne mooy juróom yi nga xam ne lislaam jàpp na ne ku leen am am jàmm mu tuddee ko addaruriyaat alxams li nit munta ñàkk ngir dund addaruriyaat alxams li nit munta ñàkk ngir dund lu am solo la yàlla nu yàlla dimbale aar réew meeg réew yu ko wër yépp ci ñol-ñol ak lépp lu ragal bu ñu dégloo waxtaanu vendredi dégluwu samedi dégluwu dimaas incha allah danañu jéem a indi beneen jataay ci jataay yi waxtaani fajar yi yàlla nun yàlla boole sàmm tabarkalla lu jub ci wax ji sunu borom lu ci jubu du moom man mii waaw lu jub ci wax ji sunu borom lu jubut du moom man mii ha wuutu leen fii yéen borom xam-xam yépp wuutu leen fii yéen soxna yépp wuuti fi képp koo xam ne kii waroon ngaa mën a toog fii di wax li ñuy wax nu wuutu la ci di jéem a wax loola rek mu moo nu fi bàyyi noo ko fi bàyyi sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ni taxaw yor seen i këyit bëgg la na firim fàncal xibaar yi toi firim fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii waaye ak suñu àndandoo bii c s yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu